intérêt général. Mmh. Donc une euh, élection pour pouvoir permettre au président de la République de pouvoir vraiment accomplir sa mission, de pouvoir dérouler ouais. et vraiment essayer de satisfaire les Sénégalais par rapport à l'attente bi ñu am ci moom. Mhm. Donc samay sortie c'est vrai que c'est un peu dama ko xaw a wàññi ah. parce que su ma dama bëgg rek su ma demee bay génn rek ma wax fu la te bëgguma late aussi ci presse bi. Mhm. parce que boo amul euh, actualité. t'as pas j'ai pas besoin de communiquer. donc à chaque fois que je communique rek mooy man damay communiquer par rapport à actualité bi ma def. Mm-hmm. damay communiquer aussi par rapport ak aussi à un besoin pressenti. voilà par rapport euh, vraiment à mes convictions. par rapport aussi à ma coalition Mimi 2024. bi mi mhm. représenté politiquement en tant qu'activiste. d'accord alors dinañu gën a xuus ci waxtaan bi loolu nuyoo bi la woon rek seen bu jingal bi baaxee ñu daal di koy aj daal di xuus ci lu xëtu yéenekaay xëy fësal ñu daal di koy jàngatal euh, ñi nga xam ne ñoo ñi teewlu après nag ñu gën a dugg ci li nga xam ne moom moo soxal euh, débat waxtaan bi. lu yéenekaay yi xëye bésu tey alxamis ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre atum 2024 dañ koy door ak yéenekaay bi di suñu jant réew di la soleil national moom dafa xuus bu baax a baax euh, ci lu soxal mbirub euh, loi de finance yi nga xam ne na mën nañ ko teg euh, ci suñu biir réew ki nga xam te moo di président de la république daal dinay déclenché lu jëm ci compte à rebours bi ci conseil des ministres moom njiit réew mi daal di sàkk ci gouvernement bi ngir ñu daal di njeexal waaye jëmmal lu jëm projet ñeel wàllum budget bi ngir atu 2025 bi nga xam te ne dinañ ko examiner jaaree ko ci boo xam te ne dafay nekk délai bu gàtt leen itam li son excellence daal di yëkkati foofu la ca conseil des ministres mooy jaajëfal bu mu jaajëfal Ousmane Sonko ci victoire yi mu am ci élection législative yi ñu génn enquête quotidien moom dafa def zoom ñëw bu baax a baax ci crue euh, yi nga xam te ne meeku nañ ko ci fleuve Sénégal yi moom moo ko daal di sabab enquête euh, quotidien euh, xuus si bu baax a baax daal di ci indi li nga xamante ne moo di ay leeral ñëw na itam ci victime yi nga xamante ne daal dinañu loru ca boobu lépp mbir lu ëpp juróom-ñaat téeméer ci ay hectares yu soxal mbirum bayum ceeb bi foofu la daanaka dafa yàqu ca la nga ne moom mooy cru yi am ca bët gànnaaru réew mi daanaka loolu yëpp yéenekaay bi di enquête quotidien daal dina koy xëy faram fàcce ko libération dafa ñëw ci violation yi ñeel wàllum tarification yi ñu affiché lu soxal mbiru ARTP daal dinay démasqué Sonatel Expresso ak SAHL ak li nga xam te ne moo di Sirius euh, daanaka këru liggéeykaay yooyu yëpp euh, ànduñu woon ak euh, la ne moom mooy li yoon daal di tëral jëm ca luñ soxal mbirub tarification yi ñu waroon a biral gannaaw rek ba ñu amee ab contrôle bu yaa jëm ci respect wu conformité ñeel wàllub yi ñu war a affiché ARTP daal di découvrir yi nga xam te ne moom moo jëm ci opérateurs yi nekkee fii ci biir réew mi anam gi ñu doon naxee ñi di askan wi waaye tamit anam gi nga xam te ne daawuñu woon affiché lu jëm ci tarification yi ba tey ci yéenekaay bi euh, di libération pool financier am nañu liggéey leneen lu sabab euh, soxal mbiru kii di Amir Abo moom nag daal nañ koy placer su mandat de dépôt euh, ay péripéties yi nga xam te ne am na ci dossier boobule ak ñetti nit ya mu soxal daanaka loolu yëpp yéenekaay bi di libération daal dina ci xuus bu baax a baax beneen yenekaay di Vox Populi ñëw itam ci évaluation ñeel élection législative anticipée yi ñu génn daal dinañ koy def foofu la ca conseil des ministres Euh, président Bassirou Diomaye Faye daal di tressé ay laurier ñeel kii di premier ministre am di Ousmane Sonko mi njiital Pastef ba tey euh, ci yéenekaay bi nga xam ne moom mooy lu soxal mbirub Vox Populi gannaaw jaajëfal bi président def jëmale ko ci kii di Ousmane Sonko am na ay réaction yu mu jur ba sa jiitu moom mooy kii di Zahra Iyane Thiam euh, moom itam jàpp na ne li ni mel élégance waaye tamit àndut la nga xam te ne moom la ñu waroon a doxal en tant que président la république la mu gis mooy kii di njiitu leen jaajëfal ci yooyu lépp élection exportateur ñëw ci réseau d'exportation mafieux bi nga xam te ne nag daal dinañ koy nemmeeku ci biir réew mi mu mel ni suñu réew daal dinay rëcc ca lu yéenekaay bi daal lu toll si ñaar fukk ak ñeenti tonnes ay pneu yi nga xam la ñu daal di teg loxo anam gi ñu ko doon waroon a jaay ci biir réew mi ak lépp la ci aju yéenekaay bi di l'observateur daal dina ci xuus ci waxtu woole le quotidien gannaaw victoire Pastef ci élection législative yi Diomaye daal at admis aux urgences li nga xam te moom mooy liggéey yu gën a fës yu mu war a doxal moom njiitu réew mi président nag daal di instruire ñi nga xam te ne ñoo di gouvernement bi ngir ñu préparer ci nu mu gën a gaawee budget atum 2025 gouvernement boobule Sonko mu mel ni nag soo moytuwul ma ngay dund fanam yi mujj ca boobu lépp gouvernement la tax yéenekaay bi daal di koy wax nag xuus na ci bu baax a baax ci biir quotidien bi Walf Quotidien moom itam ñëw ci Diomaye ak Sonko gannaaw rek ba ñu war a janook lu soxal mbirub chéraay dund bi waaye tamit ñàkkum xëyu ndaw bi yooyu bokk na ci jafe-jafe yu ñu war gën a mën a régler daar daar lu jëm itam ci recette euh, yu tukkee ci wàllub dund gi daanaka loole la yéenekaay bii di Walf Quotidien daal di xëy càmbar ci xëtam bu njëkk ci beneenub quotidien dinañ itam moom mooy nouvelle bu évêque bu Ziguinchor lu jëm itam si jaar jaaram ak itam euh, taxawaayam ñeel wàllub diine catholique loolu yëpp yéen kaay bi di Sud Quotidien euh, daal dina ci yëy yàbbi Les Échos moom ñëw ci révélation ñeel euh, mbirub njiitub bureau bu investigation mu mel ni ay dossier yoo xamante ne ubbi nañ ko foofu la ci of nag daanaka ma ngay gën di woy di ci gën a xuus ñeel lu jëm ci wàllum càmbar gi mu mel ni romb na ñaar ñeent fukk ak ñaar ci at 2023 daal di toll si 2024 loola yëpp yéen kaay bi euh, di Les Échos daal dina koy faram-fàcce résultat euh, provisoire ñeer élection législative yi ñu génn Pastef daanaka ndam lu yàlla ci daal di am mu mel ni nag ay révélation ak i tiit euh, daal di nay biir ñeel kii di Thierno Bocoum mi ñëw daal di jàngat bu baax a baax élection yi ñu génn ak lajjite gañ ca am seen coalition boobule di sàmm sa kàddu lu ëpp junne ak juróom-ñetti téeméer ak fanweeri juróom-benn nit ñooy dund ak feebar bu bon bi ñu ko xamal mu ngi ci zone rouge bi buñ sukkandikoo ci bile yéen kaay di L'As quotidien yor yor bi moom xëy euh, daal di faram-fàcce élection législative yi lu toll si ñeent fukk ak juróom-ñaari département euh, yi nga xamante ne nag Pastef am na ko juróom yu takk wàllu am ak li nga xamante ne moom moo soxal ñaar yu jàmm njariñ am ak àndu nawle mu mel ni nag système bi ma ngay gën di nërmeelu bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay bi di yor yor bi le témoin quotidien moom dafa ñëw euh, ci lu soxal mbiru élection législative yooyu ak taxaw bi ci Pastef daal di am mu mel ni nag euh, Pastef euh, changé na maanaam chamboulé na lu soxal mbirub langum politique gi loolee le témoin yéenekaay moo ñu ko daal di xamal ci xëtam bu njëkk beneen yenekaay wala ñu jar keppe ko ba tey ñu des ci yéenekaay bi di li témoin moom itam ñëw na ci lu soxal mbirub élection yooyu daal di jox ñi nga xamante ne seen i xam-xam da cee màcc jàngatee ko ak anam gi ñu nemmee ko résultat yi nga xamante ne Pastef euh, daa di na koy am ba tey itam ci lu soxal mbiru yéen kaay bi di la témoin fisc bi waroon a laal këru yéen yëglekaay yi di këru presse bi mu mel ni njiitu impôt et des domaines Abdoulaye Diagne daal di nay débloqué lu soxal yenn ci compte yu këru tasukaayu xibaar yu ñu débloqué yu ñu bloqué woon ñeel wàllum fayum fisc bi li moo ndar képp xëtu yéen kaay ñu dugg faram-fàcce lu soxal pomb waxtaan yi ñu war a waxtaanee ñeel wàllum actualité bi.